Dakar Matin. maa ngi Sénégalais yëpp di leen siyaare euh, di leen euh, balu àq bu baax ndax gëj na maa wax ci rajo bi euh, loolu maa ngi koy doog a dégg ndax tribunal pour yóbbu nañ ma fa ku mel ne suma frère ay meeru maa ngi koy doog a yëg donc mosuma jot convocation boo xam ne bu tribunal la boo xam ne daf maa woo ci. Euh, koo xam ne dafa ma woo pour suñ diggante ñu leeral ko ci tribunal bi euh, beneen bi mooy jàpp naa ne député la te député pour nga man koo condamné wala nga man koo jàpp dafa am ay yoon loolu constitution bi moo ma ko garantiral mooy charte réew mi euh, sama immunité parlementaire musuma yëg fu ñu ko levé yëguma ko assemblée nationale def ko yëguma bureau assemblée nationale autorisé it ne nañ ma pour poursuivre loolu it maa ngi koy doo doog yëg euh, mais li nga xam ne moom moo ci gën a kiimaanu daal te gën a kiimaanu même loolu buñ ko violé woon bañ koo jaar mooy ñu man ma atte te convoqué wuñ ma ab tribunal musuma yónnee aw këyit musuma jot wenn këyit wu jóge tribunal ni ma am nga procès ak ay meeru ñing loolu musuma ko yëg tey laa yëg ci biir presse en ligne bi eh, comme yéen ni ngeen ko gisee ne àtte nañ ma ba teg nañ ma ay daan donc loolu maa ngi koy ñaawlu bu baax a baax ci réewum démocratie ci ab état de droit loolu jàpp naa ne lu ñu war a xoolaat lañu ñun ñëpp ñu bokk xoolaat ko xool réew mi ni muy doxee ba nit ku nekk bu ji seeni dañ ko tooñ wala dañ koo sosal loo xam ne lii eh, defu ko mu dem ci yoon mais kim ni moo ko sosal euh, mu man ko au moins woo ñu teg mu teew weddi wala mu taq wala mu baalu àq bu dee moom moo juum loolu laa yaakaar ne moom la réew bi war a doxe mais warta doxe neneen euh, lu ma bett la daal euh, ndax ci presse en ligne bi rek laa ko gisee donc presse en ligne bi ñu ngi ci wax mais nañu xam ne daal man kenn mësuma woo tribunal di ma àtte euh, ndax man citoyen la même bu ñu violé woon ñoom constitution bi ba pare wooma tribunal pour ni dañ may àtte pare na pour tontu ji tribunal mais tribunal respecté naa ko respecté goo xam ne duñ ma woo ci dara loo xam ne concerné na ma ma bañ jóg wuy ji tribunal kon loolu daal laa ci am di ko wax sénégalais yi euh, lu ma metti la aussi nii ñu ko bindee mel ni dafa am loo xam ne man dama ko wax wala dama koo def loo xam ne lii amul euh, ba pare ñu war ma cee taqal ndax nit boo ko laajul euh, doo mën a xam ay preuve ndax la ñu wax ci verdict bi ci li ma jot jot a gis ci presse bi xa ñoom ñooma ko jëkk a jëkk a gis mooy dama wax loo xam ne amul benn preuve man nag lu ma wax rek lu nekk bu ñu bis bu ma woo danaa joxe preuve la nga xam ne moom laa wax loolu moom mooy li ma ci xam ci mbir mi fi mu toll. Dakar Matin.